ñëwal ñëwal ñëwal maa ngi lay maa ngi lay maa mi nii léegi boo jàdd porte lampe ci jàll suuf bi rek booy jàdd di gis voilà naa la ñëwal ñëwal nii la ñëwal barka ah waaw tubaari kalla mbaa sunu ci yoon xam nga rek ñun fi ñu rëkk nii fii la ñu contacté ngelaw li xam nga fii moom day dëkk boo xamee daa yaa ngi ci jàmm naka xarnu bi yaa ngi ci jàmm nu dem Thank you. waaw mooy soxna Samael doon wax rek. Hmm. mooy que amoon ak ay gone ay ñoom ñoom mu dikk wax ci wax ju rafet. Hmm. moom it xam naa da nga da koy kii bu ko defee mu wax la yitteew nga taxaw ci ku baax la. naka yittee jege si mooy rum hmm. bi kaxa boo na su mooy rum kër. dafa takk ñaareel. ba mu takkee ñaareel ba tey nag. daf ma bàyyi. bu ma ko woowee du ma jël. mënuma kaa gis fenn. wuyootoo ma. nekkatul dara ci lu ma neex. ma sonn torop ci kër gi. ndax nekk koo xam bëggul dafa metti ci laa delloo sama kër papa. foofu la ma waa ji fekk. ma wax ko sama problème. dëgg la taxawal. sa jëkkër fu mu ne moo ngi Dakar lu muy liggéey moom day jaay daa takk beneen jabar dafa takk beneen jabar maanaam xaw laa sàgg ne daf ma bàyyi ko ah mhm. sa aajo fa jono ci kàttan su borom baaxam kër tey ni yan xale bu ilakal bësër xaaloo til ka isan karatun su may rummi ka xaboona su may rummi ku meen waxit xayta su may rummi ka xaboona su may rummi ku meen kër tey ni yan xale bu ilakal bësër sa wujj bi dala liggéey hmm? sa wujj bi dafa nawtal sa jëkkër ci am picc la ko def piccum segal waaw am dengan segal ci lu ko def li may wax garaaw na de mm-hmm. dangaa naroon génn àdduna yow amu mm-hmm. Wah, itu lah tik. Uh, mau pergi sini. Saja kering ini. Kamu ni nak kerja apa kamu? Iya, ofi cindi gili bi. Nol lagi boleh. Cindi gili lagi iya. Di kono deh. Tak kefin di fair. Cepat kebakar ni. Di kau di kau dañ ko tàggal tambal ci kamp dañ ko nawtal way nag sa aji fa ñu li kay xamone na la lu ñu liggéey la mais li mom du jikkoom lu defal loxo lu loxo def loxo mën na ko lu loxo def loxo mën na ko dindi lu loxo def loxo mën na ko dindi Allah balai hadi jatuh nabi. Kain di murah di jadi bis. Semua ilmu kita habis, semua ilmu kita كرتين ين خلي بيقول لك غير مو خاطر غير دانك سي غير دول ما شاء الله gis nga ki ay xob bi poftan lu loxo def loxo mën ko dindi bo demé wutal ma ganar ganar la wax bu jigen jankub ganar la waxuma ganar ab jek jank waxon musta jur lu wex wala ko xom bo ci am bax nga jël poftan yi bolé ko mom baxal ko bam ñor xom xom xom nga sepp poftan yi sanni ganar gi nga naan ñax hmm. ganar ga bu ci baye yax lekkal lepp yow dongu nak na ko def ni ko waxe inshallah allah pare wut ñaari ñaari nunk ci laafi ak ñaari nunk ci genn diko ko ko jurgóotu waaw te diko ko dana la xalaat boo pare xol bi xol bi daati loolu gisul la mat bu lu gisee xawlaar xol bi xol bi daati loolu gisul la mat bu lu gisee xol xol bi daati loolu gisul mat bu lu gisee xawlaar xëy ne mu ngeen gisul ba demee itu pan pan paan paan nga taxaw sa kaw lal mm-hmm. sangoo lii ñetti fan nga koy sangoo boo ko sangoo ba tooy xepp nag te noonu nga tooyee ku la gis génn àdduna ku la gis faatu sa baay ak sa maam ak lépp fa nga ko sangoo toog fa ba gis génn àdduna ndax dégg na ni jëfe ni ma la ko waxee ñetti fan nga dellusiwaat fii yaa insha allah rabbi sa jëkkër ni ne def nopp ci jabur lañ ko def dañoo yew buum ci baat ci ndigg li fii ni def gol diko bu wonki wonki fa ñu jëmul ko fa na la defal no xone ne findi feer nga lonk fi ci nafsu gi fi diko diri foo bëgg yëm mu jëm ci kàttan musu borom mu baax ma la wax doy la duy mo bo démé génnal ma ñaari sarax yabo yu jigen ak ñaari carte mémoire yu wit siga ak duusunub kep bo gënë sarax wo wone ma gënë na sarax ma àgg ini àgg li may def ak yow insha allahu rabbi da nga ko not génneel li nga teg fii te def nii booy dikkaat da indil ma ñaar fukki junni ak ñaari ganaar ñaari ganaar tegal ma fii li nga yor mm-hmm. ñaari ganaar waaw ganaar yi day baax lool na ko ni jëfe ni ma ne ko waxee waaw na yow man dem ne ci yitte mm-hmm. sa bokk daa ñu fa roxla nag ñu mel ni cuuju ginaar bu dee wax ay tegg waay yooyu bi baaxul day dàq xam nga doo sëriñ dara dama lay jaay rek boo fi nekk dama lay yore dama lay yore de xam dëkk baa ngi dox de gërëtu mbaam mbaam ma de boo jaay ko yarkati gaynde yi ne parkaar bi àll ba nga koy yóbbu gërëm alxam alxam su ma jàll àjjuma gaynde yi ñu xont mbaam yi ñu ñaan lii six mille nangam naa huit ah lii kay sept mille. te sa loxo bi deux mille. te dañu doon ah waaye lii baax na de. six mille xam nga nu may defal. Hmm. yaay ko yar ko fa gaynde yi ñu konte ko ñu ne par cas. àllarba nga ko yóbbu alxames mu fanaani bu àjjuma ñu xëy reere ko eh. ma cëkk cëkku nag daa këmut cëkkut lii ci biir ngay génn teg ko fenn waxtaane ko. ah <laughs> yow kat da ngay courtier rek man maay sëriñ bi yow da ngay courtier ah waaw ma ne Serigne dama am ku ceeb ko may. teg ñeent fukk yii dama ko laal. Cheikh Abdou. ma ne mais jaay caaf sax fi mu toll nii ci gerte kemb bu ñorugul rek nangam lay jar nangam ñaar téeméer rek nangam nga yor juróom ay ñetti ñetti ñeenti téeméer la. baa si rek Cheikh Abdou la neexee ñu bi di ci sonn li may wax. li ma ne ma ne yow fii wóorut mën naa ay jinne sax mën nañu fee fekk. benn jinne du la fekk ndax li ngay def assuré waaw moo ñàkk bi ba ma fi jënd fekkee mbéj ma conséquence dama fi nit ñi bañ ñëw bu ñu gisee ma nga naan gi nekk lii rek te dem gi ko ci seen bëgg du ma ko def kon nga téye ma ah. la naa eh, eh, eh, ma ko nag kenn du ma ko laal déet da nga téye <laughs> ah, ah, nii <laughs> kon subaa waaw ah. subaa nga dama fanaan yow daal xam nga ma bëgg hmm. yorul courtier mi rek ci hmm. courtier ñuy ñëw dëgg li may wax moom ci code laa koy teg hmm. am déet jar na sax di teel a saar sa ay ay nanga lépp yow kay neel jàll ji dé waaw doo wàcc fan bi bañ bi amul kër gi la ñoo luye fii yow néeg bi ñoo ko luye bi sax sax dem wàcc naa fex naa fex guy gën na rek jógal ji jógal courtier ji ah, waaw kon baax na jógal ji eh, eh, way ba weccet bi nañ lañ cëpp loolu sa pokkataan yi sa karu pokkataan yi may sa dox ma war ma way ah am war ma jox ma tegil way da ndax ki lay xox li li li mën a yew gay de li wenn wu ci ne mën naa yew gay de dama juum kay waaye waaye dem dama ko wax ci bébé dama dama téeméer la yar dafa sa bopp ormel sa bopp ki day bëgg boppam xam naa ni ku ñeme xet leer na ma ni njiit lu kër kaay ga mu njiit lu gën na ko ran lii daal suñu wala kuur bi teewal lega den. Nanti eh. yalla yalla ibu nyaki yalla lain lagi. Oh, isa. Menyuk talas apa ini? Aku sana, ini akan ada ayam sama yakin dia pedugan deh.